قهري الله إني سألتك خلقا خاسئا متوعا لأنوال من كثير نفي الله وتوبة قبلت مغنيلة رفعت مسجد الإنسان عن بالدين الله وكن مؤيسا لنا من شر ذي أثر مصرف لي وسر أيدي الله وسر شري وسر خلقي الزيما محيني وزواج سمي الله إني جلتك في داري إني جعلتك في داري يا ثقة في سرادينا فقم من جيلاه فلا تكريا وأغلقكم مجيبا حيث ما أترهك يا الله واجعل لساني وخلبي ذاكريك معا إن الممات مع إيماني يا الله فباليقين وفي قلبي بلا وجل حتى ويبلغك الحق يا الله ولعلي موتى الهاجر ومغرقدا من كل شر وكرب داخل الله وخذ يكشما حيث الوقوف على خليل في الأبي لا تبلي دار الله وكن نسيه عن سيه ما دفنه جسمي فسرت وليدا ثم يلاو لا تنمي لا تنمي لا تنمي ما جميع المسلمين معا ولد والدتي آمين الله واغفر لنا ولها وارسل معيبنا وارتب بنا وبها في حول الله أنا أتجاوز وإيانا الحمان فما لنا سواك وأنت البر الله في مدخنا خذ القرآن ومن قرآن لا تقتبعها بما ليس بقادرة ولا تحيب جاها فيك يا الله واسقنا معا من ماء كوثر من ارتده من جميع الخلق يا الله من كان يرسل ذا حي ويغلق ذا كفر وينصر من يساق يا الله المسيل الأبيان خائن عانا لجنة الخلد yàlla guddal fan wi di la ñaanal sa diggante sa borom yàlla moom benn kiiraay yàgg képp ku fi teew ci darajay Seydina Muhammad barke Xadimu Rasul di nuyu sëriñ Kamal Fall di sëtu Cheikh Ibrahima Fall am Babul Muridina dañ ne laax bi ñu togg ci biir kër gi bu ñu demee ba jën yi nekk ca tefes ga xam ne soow mi neex na ki jële ndab yi ci kër gi dem ba ca tefes ga raxas fa bool yaa ko waral di nuyu nag jàmbaari lislaam ah sëriñ Cheikhouna Bousso sëriñ naa ñu ngi lay ziare bu baax Bousso. di tàmbale sama wax si ni sëriñ Yamar téeméer leen daan ni jotaayu namante la foofu lay tàmbale sama kàddu pour wax loolu loolu tax ndax seen maam ñu ne maam Mor seen Mor dañoo yàgg. ba ñuy nekk tout tànk di xenju sëñ Tuubaa mu daal dañu jël fat ñu si këram dañu wan naka la ñuy nekk taalibe ñu jàng si moom lu bare ñun ñii ba ñuy def loolu ay tout tànk lañu woon nekkoon lycée Malick Sy tey nag bés bi bésu namante la ndax euh, li ko waraloon firnde bi daf fi nekk ndax ba ñuy xencu Sëñ Tuubaa dañoo nekkoon diggante Sëñ Saliou Mbàkke ak Sëñ Abdoulaye Sarr du ma ne Sëñ Saliou Mbàkke waa kër seen Mbàkke Madina mën nañ ko seede du ma ne Sëñ Abdoulaye Sarr Baye Talla mais mën na ko seede si loolu nag li gën a firndeel loolu ñun ba ñuy xencu Sëñ Tuubaa dañoo amoon yéene jaar ci yoonu maam Cheikh Ibra ndax dañ ne woon murit nu mu baax baax doon murit bon doon doon doon doon Baay Faal looloo tax seen kamal teew fii kon nag yaakaar naa ni suñu ay ñu doon xeeñtu yàlla daf mel ne yàlla daf ko biral tey kon nag loolu dañuy sant si moor loolu daal laa bëggoon wax ni mbooloo mi li gën tax mu nekk daje namante loolu moo tax sëñ Cheikh naa témoin si dina jox ay kàddu firndeel loolu dama ko jox kàddu du pare mu jox kàddu sëñ Mor sëñ Mor delloo kàddu bi Yamar Yamar jox kàddu bi sëñ Talla sëñ Talla jox kàddu sëñ Kamal bi a'uuzu bika min amasaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruuni bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin allahumma salli ala sayyidina wa mawlaana wa waasilatina ilayka muhammadin al-fataah wa sallim alayhi wajjihanni bi jaahi lil awli zaatil miftaax barke borom Tuubaa barke borom Tuubaa barke borom Tuubaa assalaamu aleykum wa rahmatullaahi noo ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi Samba Diallo mi nga xam ne moom la buur dénk gox bi muy délégué de quartier bi lool mu càllale ci Cheikh Ibrahima nga xam ne tey kii ku topp Serigne Touba moom ngay xool mu muy doxee nga koy roy suñ kamaa ñu ngi yeesal kóllëre gi fi nekkoon di ñaan suñu borom li toog gisee ko yàlla nañu ko dundaat moom naa lool dund dund gu ni toll mu gën a jag gi wees barke euh, di nuyu Momar sëñ Taala ñoo ngi lay siyaare bu baax di yeesal li fi nekkoon démb waaw li mu am juróom fukki at yàgg nañ bokk yi tànt di liggéeyal sëriñ Touba di siyaar waa kër sëñ Bombal yi nga xam ne ni bàyyeekoo noonu tubaa ñëw fi suñuy sëriñ leen noo ngi leen di siyaare bu baax di yeesal taalibe gi te di leen ñaanal suñ boroom nangu leen seenub liggéey yàlla na sëriñ daje ngërëmal sëñ Mbàkke Madina waa kër sëñ Mbàkke Madina nag daa jëmm joo nii ci biir dëkk bi mooy sama nawle muy sëriñ Cheikh Ndiaye mii toog fii ci gannaaw ñu ko doon wane sànq noo bokk xeet liggéey daje ci liggéey nekk ay taalibe di ànd bokk daayira maarif bu enseignant yi ma miin ko lool ci sëriñ Tuubaa muy nit ku am kóllëre di nit ku baax ku bëgg lu baax sëriñ Cheikh noo ngi lay nuyu di la màggal di nuyu nag jànkatu xasaayit yi soxna mat leen dafa dem dem na soxna mat leen nuyu nañ ko bu baax ci njàng mi mu fi jàng di ko ci ndokkeel sëñ sëy la ma wax laa lay wax amee sëy yàgg na lool loolu nag ma nga tàmbalee fi ma koy tàmbalee mooy keroog ba nuy sukk ci kanamu sëriñ Saalihu Mbàkke maak sëriñ Basiru Jóob mi di jébbalu juillet 1976 keroog la dënnu ba daanu got sëriñ bi boole suñu ñaari loxo te ñu jébbalu mu ñaanal ñu ñu ñibbisi sos daayira lycée Malick Sy maarifu li talabatil muridina fi Touba lycée Malick ñu dox ci Souleymane ñëw ci jëwriñ Souleymane Mourchid kii jàkka dañu tabax bâtiment D bâtiment D ca gan ca liise ca fond ba moo ko ruuj jënd ay birigam jënd ciment am tabax ko kii Souleymane mi ndax at ba mu ñëwee ne ca daara ja ci lañu am ci la ñu itam ndakaaru waaye sunu gannaaw li dundal daara ji maarif yëkkati ba mu tas ci biir dëkk bi jëm jaa ngi nii ndax xale yi dañuy génn ci lycée bi dem ci koñ yi bu vacances dañuy namm daara dem seeni koñ sos fay daara di woo ñu nekkoon ca lycée ba ñu leen cay fekk ñu ànd ak ñoom 76 laa wax de 77 78 booba Serigne Saliou Touré ñëwul ci dëkk bi ñun ñu ñëw asile bu dul Dakar. dem ci sëriñ Saalibu Mbàkke ne ko dañoo bëgg daayira ci kër ga maak sëñ Bas mii mu jox ñu nixmatu rabbal alamin fi xidmati xeyril alamin këyit ba mu ko bind moo ko bind ak loxoom defal ko tarjumaan ne fa haadi nixmatu rabbal alamin fi xidmati xeyril alamin ne su ngeen demee na ngeen ma ci bind te lu ñuy sasoo naa ko yëg kooku tawféex la ñu indi fi sëriñ Saliou Touré 1981 neuvième jour koor 80 81 mu ne ko boo demee kees sama daayira ba ne kër alaaji Mbusa na nga ànd ak ñoom ci liggéey bi loolu moo indi jàngu iit yi ñuy jàng jàkkay murit ba ba tabaski yi moo ci mucc musul dakk Serigne Saliou nag mooy suñu jëwriñ ci toolu Serigne Saliou Mbacke ndax moo ñu liggéey loolu liggéey bu ñu ba ñu am ngërëm ndax ab taalibe bu amee ngërëm da koy xam ndax day xool boppam fa mu toll woon ba muy door ak fi mu toll léegi noo ngi sant Serigne Touba bu baax Momar Faye mii Momar moo ma jàngal CP j'avais six ans et demi bi ma koy xam Cheikh Ndiaye mii moo ko jàngal Cheikh Ndiaye yaa doon nettoyé kër gi yaa yaa doon rufi ak say rato ak say ileer pour mu toxu si kon kii dama jàpp ne suñu way jur la ñun ndax ku téye sa loxo ne la bindal nga bind mun la baa nga ne baa kooku sëb sëriña sa wayjur la sëñ Momar amel nañ la cant goo xam ne nii amul fu muy tàmbalee amul fu muy yem ba nga xam ne sa bés bii tey man damaa tawat ñaari fan a ngi nii wàcc ma génnuma sama néeg waaye tey damaa xëy ñaan ay doom yu bari <laughs> pour mën a teg tànk bi ndax ute jataay bii su ma ko wutee rek day mel ne li ma liggéey ba may tàmbale ci yoonu Serigne Touba ba léegi day manqué man damaa jàpp ne tey lañ may seexal parce man am naa 65 ans liggéeyal naa Serigne Touba cinquante ans yu mu wóor man ànd ak sëñ Bass mii ñu ne ci daayira bi wallaahi alazim kon man tey sama bës la bés bi lépp lu ci waroon a def tey yii damaa jàpp ne maag Serigne Bass mi ñoo ko waroon def Serigne moom a créé daayira Sarsara samp ko fii dixième xaw a wéet lool ñuy jóge HLM route de dakaar ñoom Issa Mbuuba fi nekkoon Basiiru Seck xale yooyu tey jii waroon nañ fi teew ñu sargal leen ndax ñoo fi jibal sëriñ Touba ci biir këram gi kon Serigne Momar ñuy jóge aselem di ñëw fii di fi guddi ajuma beneen guddi ajuma bi waa Sarsara ñëw HLM ñu guddi ajuma noonu lañ ko jàpp woon ci kër gi kon ay tukki ay liggéey ak nit ñi ñoo tas rek xam nga boo màggee sa tool day gën a yaatu. waaye ñun fii suñ daara la sëñ Mamar yàlla na sëriñ Touba taxawu la fépp ci lépp yàgg sa njaboot su bés bi yàlla na suñu borom gërëm ko te defal la ko nga koy def at mu jot ci barke yonent bi barke alquranul karim euh, damay wax ne j'ai parlé avec émotion nag damaa maanaam damaa wax waxu waxu xol waxu xol laa wax waaye billaay wallaay mën naa toog fii ba minuit jëmm yi fi toog kenn ku ne mën naa wax ci yow di wax di wax di wax di wax di wax ndax ñun murit yu yàgg lañu booba cees mokkul bi ñuy tànt fii di fi woo Ablaye Niang on avait vingt ans kenn ñemewul tànt biir aselem kon noo ngi sant bu baax maa ngi nuyu waa dixième yëpp fii nag dama leen di wax waa dixième sëriñ Touba fu mu jib ku ko dégg moo ca mënul teew def ci sa xalal wallaahi alazim bés bu ñu dajee dinañ xam kuy sëriñ Tuubaa ngërëmal yàlla yombul nanu fekk ku yàlla gërëm fexe mu gërëm nu ñi may waxal sama bokk la nu man fii laa dëkk ñaari fan ñett yu ne ñu gis sama oto fii gaar Asu Njaay maa ngi lay nuyu bu baax sama soxna buuba dul faal mii sama ndijaay la Ayda saw Mari Ibba sama tànta non Ayda Sow sama mag la fii sama kër bàyyi kon fii xam naa fi maa ngi soññ ñëpp bu liggéey bi jotatee na ñëpp génn ñu jàpp ci sant yàlla yàlla nangul lu ko defar ci suñuy mbir ak suñuy mbiri njaboot sëriñ Bas nixmatu rabbal alamin tey bu fekkoon ne ñëpp dañu fee teew man lu ma wax yow doo wax ndax sëriñ Ousseynou Diop mi nga xam ne mooy sunu mag ba nu yoree sunu daayira di ko doxal ba mu fekk sinu dañu ko jox sunu kilifteefu daayira muy sunu jëwrin nixmatu rabbal alamin maa ngi wax ci kàddoom di sargal sëñ Momar di nuyu waa dixième di yeesal kóllëre gi di feddali lépp euh, dinaa yamale foofu ndax xam naa ne sëñ bi am na ñoo xam ne nii balaa timis war nañoo dugg seeni kër xam naa ko euh, kii li tax duma wax lu bari ci moom daf duma wax kii danoo bokk néeg bokk lal bokk pos bokk armoire Souleymane mii day summi ma sol mbaa mu summi mu sol su yoree mën na ko booy jox ma mu jox ma ànd Touba fanaan kër sëñ Saliou ñu julli fajar mu dem jumaa ja romb kër sëñ Abdou naa ma paña <laughs> ko dama ko paña la bëggoon maa la bëgg waaye maa sëñ Saliou waaye ne ma sëñ Touba njabootam yëpp benn la ku nekk rek xam nga loolu Souleymane du jóg ci man maa ngi lay seeral na sori nga ma ci bët waaye jege nga ma lool waaw mbokk geeg lépp ndax nit boo xamee ay wayjuram xam ay rakam xam ay magam xam ndeyam xam ay baayam ñu xam la yéen a kon maa ngi yemale sama kàddu foofu di jégalu ci guddi gi di balu xàq ñëpp di ñaanal ñëpp suñu borom xéewal yi bu nee ci kaw na ko ni cëng ci suuf bu nee ci suuf na ko nepp leet mu génn bu génnee te sori na ko ñoddi mu jege bu jegee te jafe dara du ko jar na yomb lool su yombee te tuuti day gaaw a jeex na ne gàññ su ne gàññ dina barkeel bu barkeelee nañ ko ci jaamu bu ñu ko jaamoo nanu ko nangul nan dund ba mu soog na te buñ ko tooñ mukk bu ñu jumee ba tooñ ko na ko faxas ba mun a fur barke sëriñ Fàllu Mbàkke alhamdulillahi lazi fadalana ala kasir min ibad muminin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin rashidil mursid saydina muhammad wa ashaabul yamin mbokk yi ñu ngi leen di ziar leen di ndokkeel ci bés bu mag bi tax jataay bi ñoo fi gis nu daje fi yépp man naa warlu ay góor yàlla lan kenn du xasoon wax rek yóbbaale ñi ci des yépp mais ku mel na sëñ moor manuma wax ni ma waxal du fekkoon sax kàddu gu gàtt la nga wax te duma wax tax mu tàmbali ci sëñ Majib muy imaam du xasan wax jeex na tax ñoo bokk ndargale dama fàttali def naan jaar na sama daaro maam la jànge sëñ Kamal tam hmm? dëgg la eh, moom tam du jëloon kàddu rek dafay doy sëkk kilifa gi itam dama wëla rek famille moom yëpp waa kër sëñ Marouba Gueye ki ci gën ràññiku nag Cheikh Omar Gueye Baye Daam nekk ak naag moom Saoudier ñaari at dëkk ci même kër loolu gën na tax ma xam sëñ Marouba Gueye ba pare wóolalanteeg famille moom sëñ naa Bousso nag moom rekk jaroon na ma déplacé loolu mu wax moo am ak moog euh, sëñ Bachir moment yi gën a neex ci sënu dund dan ko bokk luy toog di kuréel léegi laa koy wax mooy Idriss ma ko yàlla may ka mu am sóot mu am kàddu bu neex moom ak sëñ Badou ak sëñ Galaay ñoom ñett ñoo jiite woon daara yi ñun pas pas lan amoon ak pastéef mais yàlla dénk nu woon ak xëy na euh, jàng yu neex ñu nu nekk seen ginnaaw nu jiite nu li fa may daane la nag mooy sëñ euh, euh, Mamar Fay moo nu jëkk jël dugal nu ci oto yóbbu nu Tuuba kooku manoo ko fay yàlla xam na ni gëj naa dem ci daje yi ay ati at daan naa dem ci dëj yi sax yëpp daanaka laa arrêté mais bés bu mel nii tax li lu ñàkk bañ dem sax mais doo demalee ñii ñii demaloo leen mu yaakaar ni danga leen cof te mënoo jug suba bu ba ngoon di dem doo ko defee daanaka programme yi dafa bare sëñ Mor mi jàpp seen loxo dugal nu oto yóbbu nu teg nu ci loxo sëñ Mbàkke Madina sëñ Mbàkke Madina tam am yéene bu rëy ci ñun sëñ Xaadim Jeng mi waajuram moo nu dalal nu këram boobu mi ci marché bi bu Daaru Xuddoos bi sëñ Mbàkke Madina yeewal nu nag ci buntu kër gi maa ngi fàttaliku ñu màggal màggal gu nga xamee ni duñu mënee wax màggal googu gën a neex si sanu màggal maa ngi koy fàttaliku du guddi daan jot ba gaa yi war a tëdd ma jëkk ma jël kàddir yi ak bool yi bool yi ñu lekkoon daata deux heures du matin ma raxas yépp li ko waraloon mooy boobu awma aw ma ñaar dërëm te bëgg naa participer ci màggal te xam naa ni xaalis kese du mooy participation doole doo amee xam-xam da joxe sa xam-xam doo amee alal nga joxe sa alal ku ci nekk la nga am ngay joxe booba gone lan amuñu ñaari fukki at ñu sasoo maa ngi koy fàttaliku ñaar fukki booli euh, euh, kawdir ak lu ma juróom euh, fukki booli ñu raxas ko ci guddi gi ñu def ko seen participation ci màggal gi loolu maa ngi fàttaliku loolu moo tax mu bokk ci màggal yi ma gën a marqué yeneen màggal yi du ma bëgg tudd lim bi léegi maa ngi yeew ay nag di joxe ay nag mais pour man màggal googu gën a neex ci man que màggal yi ma mujj dund parce que màggal googu moom xam naa ni seen borom seen borom ak sëñ Tuubaa nangu na ko voilà ba nga xam ne ni comme euh, sëñ Mor daf ma wax naa sàddu sànni ay kàddu te ni sëñ Basiir wax ñi war a wax bari na foofu la ñuy kàddu gi di ñaan rek ku ci nekk boo fi jógee sëñ Tuubaa fàggul la lu ëpp sa am na ko bis yu mel nii fursa la dañ ci occasionné dugal ci soxla yi ñun sax daanaka liggéey nañu luñ mënee wax wàcc na li Seex Buso wax léegi ni seex na du ko waxee waxul lu ko neex di waxul ak bakkanam benn bés ajuma ju nekk Tuuba laa daan jule maa ngi koy fàttali doomu sëñ Tuuba yëpp sëñ Abdulaat ba sëñ Murtada ñëpp gërëm nañu sëñ Murtada daf daan taal otoom di ma genn si du ma toogee ba léegi may toog ay weer du ma dem Tuuba gars ni ma sëñ bi gëj nga Tuuba de samay doom yi di wax yóbbu nu Tuubaa man leen ñun ci kuddu yu jëkk yu tàng yi leen nu seet waaw man leen ñun ci kudd yu jëkk yi leen nu seet moo tax man ne ko léegi ñun am nañ kër Tuubaa mais léegi bi sëñ Saaliw joxee ndigal ni ku ci nekk fa nga nekk mën nga fa màggal ak léegi laat commencé màggal Thiès waaw donc euh, sëñ Bass abusé nañ tuuti mais dañu mag mag ñi li ñuy wax wax du bare du amee njëriñ te li ma fi wax yëpp ay seede seede yaa ngi fi donc ñu ngi ñaan di delluwaat rek di ñaan sëñ bi nangul nu te jox nu lu ëpp seen am na ko mën na ko jërëjëf maa salaam bismillahi rrahmani rrahim إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون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 baada ayat alkarim ñu ngi leen di nuyu nuyu islaam nuyu waa malaul ars nu bi nga xam ni yonent bi salallahu alayhi wa sallam bi mu jëmee nga fii ci isra wal miraaj mi attaxiyaatu lillah azzakiyaatu lillah attayibaatu assalaatu alayhi assalaamu alayka la ko sunu boroom wax ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaye moom nekkul ku égoïste mooy ananiya la arab di wax daf nu nuyoo leen ni ko wa ala ibadillahi saalihin nuyoo yu sell yooyu ànd ak yërmande yàlla ak barke yàlla ak jàmm yàlla nu ngi leen di koy nuyu yéen ñi nekk fii ak ñi nekk feneen ci bépp gox di leen ziyaara li nu fi wax yépp duma ci dellu su ngeen gisee ma jàng alquran man jubbu boobu leen ma xamee kon na foo bu ma fi jàngee alquran fii si waa ahlullaahi ahlul quran wa xaasatihi danaa kontaan lool du ma tudd ay tur waaye ñépp xam na ni xam naa leen bu sa mi ngi wax sax sama diggante moom si Ibrahima Wade man sa ay sa waajur laa xamoon sa waajur laa jëkk xam sax Ibrahima Wade <laughs> sa waajur ne ku baax nekk ci dëkk bi nekk notable servir fi lu baree bare ci service bi mu nekkoon ak ci asilem ak ci jumaa ji baax lool kii nag moom moo sama maam noo bokkoon benn sëriñ muy Seex Mbàkke ma Madina mii muy alxaaji Ibrahima Seck jëkk fee sa wetu jàkk Tukulóor moom sama njaatige la fii fii ci quartier bi moom mii bi ma fi jógee ñëw école jóge école normale 80 81 lycée fekk naa leen fi kon nag xam naa dëkk bi bu baax a baax sëñ Bachir maa ngi leen di nuyu di nuyu kilifa diine yi ma fekk yëpp ak soxna yu tedd yi nga xam nooy maam Jaara Buso ak ñoom maam Fawad <coughs> ak nitu yàlla yu baax yi kenn waxu fi kenn noppi yéen da ngeen yaru ndax ñi leen yar noo yaru xadimu rasulullah muy sëñ Touba ku gis njabootam ni nu dale yaru man bu may see murit bu yaruwul sax daf may yéem xam nga umma bi yépp murit lañu ndax moo dafa ni rek ku nam mu jëm si yàlla rek na ñëw <laughs> muridullah jeex na ñëpp kenn ñemewul génn si baatu muridullah waaw waaw waxtu wee xat kenn du fi man wax lu bare waaye daal maa ngi ñaan yàlla di leen ndokkeel sëñ Mor dina wan ni ku baax a ngi nii ku gore a ngi nii ndax Umar ibnu Xataab moom dafa am ku gërëm nit di wax mbaaxam mu ko ndax dëkk ngeen ndax ànd ngeen tukki wala ndax seq ngeen alal mun ko déedéet mun ko kon xamoo ko kon kii ku fi mën a wax rek gënoon ko xam ndax ñun la dëkkal waaw da bokk ci jàkka ji bokk ci piliers yi nag ba pare yaru dal yaru dal li nu bëgg ci nit ci jullit moom alaama boobu mi ngi ci moom Ah, di ñaanal ñu suñu soxna si fi jógee ndeysaan ak njabootam yu ñëw yi fi jógee yàlla na suuf tubaa sedd si ñoom ah, di gërëm ñëpp di leen ndokkeel si bés bii li muy xat si ñun ñëpp ah, fekk sunu njaboot si suba ñëw na fi jàng fi kaamir jàng fi alxuraan bokk ak yéen kon nu ngi ñaanal yàlla ñëpp sëñ Souleymane moom moom beneen dit moom macha allah moom mujaahid la mujaahid la mujaahid waxtu ma nekk dama laa ziar si mu ma déedéet yow doo ñëw man maay ñëw di ko baax waaw daxaa xayaatahu kullaha li xidmati diini wal islaam waaw li mu def si carrière gi def ko ci feneen i feneen loolu rek moo tax bu nee sëriñ su mag sa wax na ni ku nekk fa nga toog mën nga fa màggal yàlla moom wax dëgg yàlla mu ngi koy màggal fu mu toll nu ngi ñaanal yàlla ñëpp si te it yaqiinan si ñaan gi nangu na ndax yonent bi moo ni udu wa antum muuqinuna bi ijaaba te yéen si ngoonu ajuma ji ah yéen doo xasaayit ba waxtu wi foo tolli dégg xasaayit sëñ Tuubaa yi tabaarakallah képp ku fi ñëwoon daal jéego yoo fi ñëwoon yal na ko def mu sibbi ko bàkkaar àddoole ko tuyaaba nu ngi ñaanal yëpp di ñaanal gan yi jóge ba xombal gox yëpp nu ñëpp daa yi fi jàmm delloog jàmm dama ne woon naa egsi rek tatagal sama xarit yi sama collègue yi nga xam ne ñoo nekkandoo woon macha allah Euh, ziar leen bu baax wane sa mbégte si yéen ndax amul benn doomu sëriñ Tuuba boo xam ni ñëw na ndar te dalul si sunu kër ñun ba fii ne koo si tudd rek bu ñëwee ndar su yéen a ngi tudd fi Ablaye Niang léegi sama sëriñ bi ma jàng alxuraan moo ko jàngal kër Moxsin sëñ Bachir sa turandoo Bachir Samb yaa ngi tudd Ablaye Sarr Ablaye Sarr yaa mi sama bàjjen la noo bokk benn gox si loola mu jóge fa dem Gendar ña mu amee ñëpp di leen jàngal ñoo bokkoon benn daara waaw sëñ Fallou nu ko nuyoo ko El Hadj Mbaye Guèye ñun amul sama maam Mor Anta Sëri waajur sëñ Touba la daan àndal waaw ñun moo tax dañu saf sàpp si këru tariqa yi moo tax man ma dëgër bopp xam nga doomu sax day dëgër bopp man damay dem màggal ah di dem Kazu Rajab di dem Taïf di dem fépp ndax ñun nitu daara lañu ndar moom xamul fanatique ndar moom dañ lay jàngal xam-xam ngay xam ne am na ko wax léegi. ni nitu yàlla da lay jàngal yow rek yar la yar si diine yar si tasawuf koo ci bëgg ngir yàlla ah loolu nag yeneen ko yàlla defal defal leen ko bi xurmati rasul alayhi wa sallam guddal naa sax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf yi mbokki ñu ngi nuyoo nuyoo lislaam tey ziyaare xam naa ni ko sunu baay bi waxee sëriñ Cheikh bëggoon rek ñu ubbil gan ñi nga xam ni ñoo jógee Touba ñu leen di tudd di tudd kilifa goo xamante ni bii xam naa juróomi minute incha allah rabbi ñu wax ci moom rek ay seede bégale leen ko waaye ginnaaw loolu ñi tax ñu ñëw fii ñu nuyu leen Baye Mor Faye mii woote waaye suñu bàjjen bi taxaw di bàjjen Bambi di nuyu ñëpp xam naa su ma nuyoowee Baye Bachir moo ko sëñ naa mii moom mii su yàlla dogaloon ñu daje ginnaaw Amérique moom mii dinaa dinaa sama xel dina dem ci fulku bi ak weeru koor moom waaw waaye sëñ Seexuna mii su ma daje woon ak moom ginnaaw Amérique it sama xel dina dem ci iit ak korite akum njàngam ndax dañoo juddu di julli iit kër sëñ Saliou Touré di fekk ñuy def loola muy nit ñu baax Baye Mor ñu ngi lay ziar di ñaan nga yàgg fi te wér suñu bàjjan beeg suñu yaay yi ñu ziari leen xam nga Baye Talla waykat ba dafa waxoon ni inna lillahi ibadan futana taraku dunya waxaaful fitana yàlla sunu borom dafa may am jaam ñoo xam ni sëriñ Kamal jaam ñi dañoo yeewu dañoo xool àddina xam ni amul kenn koo xamante ni bii nekk na fi ba sax fi bi xoolee àddina ni kenn saxu fi nag ñoom dañoo jël àddina jàppe ko géej waaye jël seeni jëf yu baax mu doon looco goo xam ne gaal goo xam ne ci lañuy ñuy jéggee géej yooyu su ma koy xool kenn rek laa koy jox muy sëriñ Mbàkke Madina mayul àdduna dara lebalul àdduna dara àdduna amul ci moom dara séddiwu ko dara boo xoolee li nga gis ci moom mooy kaamil alxuraan nee nañ moom ak sëñ Cheikh Mbacke la sëñ Tuubaa digaloon ni kenn ku ne bala ngaa xëy jox nit loxo nuyu ko na nga jàng alxuraan sëñ Mourchid waaye sëriñ Mbacke Madina moom di def ñaari kaamil yi nga xam ne daanaka dañuy wax ñaari kaamil waaye wutuloon wutuloon ab. doon koo xam ni daa am ko ko misaaloon misaal mu daw yaram te loolu yombu ta misaal de nee na sëñ Mbàkke Madina ni mel ci àddina mooy koo xam ni dangaa sol bu mu weex tàll ni mu mbubu sëñ Moor mii xuus ci géejug dereet ba génn ko te taxul loolu yomb na am sëñ Mbàkke Madina mooy jëmm joo xam ni daa sol mbub mu weex xuus ci géejug dereet ba génn ko sa njamar te daraam tokkut àdduna mayu ko dara laa bëgg a wax mu doon koo xam ne nag mbooleem ku mu bokkal jamono bàyyi woon nga ko xel may far de wax ni bokk jamono doomi sëñ tubaa ñu di la tudd mbaa di la joxoñ mbaa di bàyyi xet yombut waaye moom ñooñu mu bokkal sëñ tubaa ñooy wax ci moom seede ma tàmbalee ko ci sëñ Modou Moustapha benn jàppal sa baaraam sëñ Modou Moustapha nee na sëriñ Mbacke Madina jiituwuma ko ci sëriñ Touba waaye ëppaliwuma ko ci sëriñ Touba loolu jërëjëf loolu sëñ sëñ sëñ Modou Moustapha mi tax mu bokk sëñ Touba moo wax loola. sëñ Modou Moustapha taxaw sëñ Fallou dan ni moom sëñ Mbacke Madina cëru doomu sëñ Touba la yor loolu nag Baye Talla dina xam cëru doomu sëñ Touba mooy lan. sëñ tubaa ñi ñu tuddee ay doom ci moom cër bi lu ko sunu borom di fayee la. waaye sëñ Fallou moo ni sëñ Mbacke Madina cëru doomi sëñ Touba la yor sëriñ Bassirou Mbacke keroog bi sengoor ñëwee Touba ñu koy ñu koy présenté doomi kilifa yi lu am solo la wax lu rëy keneen ku dul ñoom boo waxee lii gars yi jàpp sa mbubb sëñ Bassirou bi muy nuyoole sëriñ Mbacke Madina ak Senghor dane ko sëriñ mii suñu dooma waaye moo ñu gën allahu akbar ah sëñ Mor ki nga yaakaar nii ki tax ki ñu tudd ci jataay bii sëñ Basiru mbakke waajuru sëñ Muntaxa yàlla na fi àggalool te wér bi mu koy nuyoo ak Senghor dañu ko kii suñu doom la waaye moo ñu gën mook sëñ Abdou dañoo bokk lépp sëñ Abdou moo ko ne woon yow day bu sëriñ Tuubaa del sibaatoon ci kaw suuf doo soppi doo soppi toogaay loolu nag mooy sëriñ Mbàkke Madina xam naa waxtu weexat sëñ Mouhamadoul Bachir sëñ Cheikh waaye sëriñ Mbàkke Madina doon jëmm joo xamante ni bii ñim bokkal sëñ Tuubaa nañ ko bàyyee xel bàyyi taala nee na njaaxay bis juróomi doomi sëñ Tuubaa duggandoo ci këram di ko ziyaare ji te kenn yëgul sa morom loolu cër la de juróomi doomi sëñ Tuubaa xëy kenn ku ne dugg kër sëñ Mbàkke mbat ne di ko ziyaare moo tax ba mu toogee mag mi toog ci moom daa xëy ni ko Mbàkke xam nga lu xew lii lii man xaw ma ko de su dee àdduna doy tukki tey na ma ko wax ma bañ a ñibbi ma bu bu déggee ñëw fekk ma fii ndax doomi sëñ Tuubaa yi nii ñu ñëwee sa kër gi génn man yéem nee nañ yor yor la sëñ wax la may wax ak moom génn ñu dem ba tisbaar soxna Astu Gaawaan ñëw ah ñu dem ba tisbaar Serigne Saliou ñëw ñu dem ba ginnaaw timis Serigne Soye bu ñëw ñu dem ba ginnaaw gee sëñ Mourtala ñëw mag mi ni ko Mbàkke xam nga lu xewa man bu fekkente ni àdduna day tukki naa ko yëg tey man nag daa mel ni waaw jërëjëf soxna si waan borom xasida yi daa mel ni nag maa ngi ñaan yàlla man de damay ñaan yàlla fekkee bis bi déwén waaw waaw incha allah sëñ Jamar yàlla ko fekke déwén incha allah ñu ngi jéggalu bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu baay taala asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Bass dafa wax ni bala maa yëkkati ay bayit yiñ ma fi wooyee naa jiital ay kàddu kàddu yi nag damay jëfandikoo kàddu yi mag ñi mag ñi dañoo wax ni boo bëggee gis gaañi da ngay dem ca waaja boo demee ca waaja rek gaañi fekk la fi kon sëñ moor ay gaay rekk la fi fekk yu góor ak yu jigéen te am na ci ñoo xam ni ku leen ni waliyu ñoom duñ la jëppi ndax foog nañ ko ci seen bopp ci ñi fi ñëw am na ci ñoo xam ni ku la ni ñoom waliyu lañ jasaakumullah moom mi nga ko wax du la jëppi ndax nekk na ndaw ñi ma yàlla lool di ko wéetal bëgg ko lool yaakaar ko lool ba ak mag fekk ko fa kooku ku ko ni waliyu nga du la jéppi ndax am na yaakaar na ko ci boppam ndax sëñ Tuubaa moo wax nii waxta fa kullu man baadara waxta siqari ilal hudastara waxtal kibari képp koo xam ne bi ngay ndaw nga tàmbali boo dee mag da nga am dara sëñ bi sax dañuy boo dee mag danga nga noppalu kon mën naa cee tudd Euh, sëñ sëñ Souleymane wax naa ko léegi bi ma ko siyaaree ma ne ko ba ma gëjee sa kër ak léegi da mat na fanweeri at te maak moom kuñ génn ci say at fanweeri at la ca des du mat ñeent fukk kon booba la tàmbali nekk ci wéetaay nekk ci mbaax nekk ci bëgg sëñ Touba ni mu ko waxale boppam ba tollu fii ak sëñ Kamal ak sëñ Boussa mii nga xam moom itam ba muy élève ca jamono ju njëkk ja la bàyyi lépp xam ni busa la sant di jàng xasaay te man ko lool nag bëgg yoon wi lool tey dox ci lu koy yaatal Cheikh Bass mii Cheikh Abdoulaye Xaadim Bamba Sarr moo nu boole te billaahi lazi laa ilaaha illaa li ma gëm ba yowmal xayaam mooy Cheikh Abdoulaye Bamba Xaadim saar Sëñ Tuubaa jàppewu ko taalibe ab xarit la ko jàppe mooy koo xam ne lépp sëñ tubaa neex na ko da gis si donga yi koo xam ne danaa rajo ma neex kee naan kuréel la ma neex kee lee ma neex moom moom nay sëñ tubaa rek moom rek laa mas a gane une semaine ndar ku baax a ngoog waaw moo tax bi ma yëgalee bis bi dama ko ne woon danaa yabal sama njaboot gi waaye dama ko ne sax maay ñëwal maa ñëwal sama bopp ndax kóllëre waaye fi may daanele mooy sëñ Mbàkke Madina bis bi ma ko mujjee nuyu ginnaaw gee la ma ànd ak sëñ Mamor Naar sëñ Mamor Naar doomi sëñ falu la moo jóge woon Mauritanie di julli ab oto saaraan fekk ko fa mu doon julli timis loolaa ko topp ba ba ba mu dem barsàq yàlla na ko yàlla doolu leer taas ñu ci barkeem keroog moom laa àndal ñu nuyu sëñ Mbàkke màddina ba ma ko joxee loxo ñi muuma bank sama loxo defe ni lu ma def gaañ ko billaahi ba ma ko joxee loxo damaa defee ni lu ma def gaañ ko ba damaa def nii rek yor samay loxo daanaka sëñ Mbàkke Madina moom lu ci war a wax rek wax nga koy ndax ku xam alxuraan alxuraan sëñ tubaa moom moo nu ko xamal sëñ Tuubaa ku jàng mu xamal la lu baax ku am xel sax mu gis lu baax ndax Tuubaa gii moo ko sanc moo doon deuxième ville du Sénégal téeméeri jumaa ak ñaar fukk ak nangam ma nga Tuubaa ak ay ay ñetti junniy daara kon sëñ tubaa moom ay jumaa rek la fa nekk am na ñu wax damaa bañ a bañ a wax lim waaye am na ñu ni téeméeri jumaa ak juróom fukk ma nga biir Touba la fa di jàkka nag ku dul yàlla xamoo ko ndax ku fa samp kër rek war nga faa tabax jàkk njukkale ko sëñ Touba sëñ Touba dañuy wal yaxab bi xaqi baa il basmala wa siini wal miimi sororal kamala loolu alxuraan a ngoog sëñ Touba nee na yàlla maa ngi lay ñaan ci barke baa ak siin ak miim. nga may ma surooral kamala mas naa ci waxtaan ak sëñ Fallou alxuraan mu ne ma surooral kamala amul ci àdduna lii nag day tax nit ki xam kan mooy sëñ mbakk Madina xamit lan mooy alxuraan billaahi wallaahi taala sim sëñ Tuubaa yàlla maa ngi lay ñaan ci baa baa siin miim nga xam ne taalibi buñ ko nee baa ñu jéggal ko ni siin ñu jéggal ndeyam mu ni miim ñu jéggal baayam sëñ Tuubaa yàlla maa ngi lay ñaan ci barke Basin miim sorooral kamala sorooral kamala dañoo wax ni ba njëkk mooy rilwaanullahi tabaaraka wa taala yàlla danoo bind ngir ñu jaamu ko yàlla nag ni la sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ euh, euh, euh, sëñ Kamal li taxoon yàlla li taxoon ma bind la am naa ci satisfaction kontaan naa ci yow gërëm naa la moo tax sunu borom ni war wa ridwaanullahi akbaru saaliku huwal fawsul azim ngërëmul yàlla mooy li gën a màgg ci lu doomu aadama am ku ko am ka ko amul dana la ko ñee ci àdduna ak alaaxira yàlla nañ ko yàlla may ci barke sañ Mbàkke Madina ba ca tegu mooy dugg aljana ay jeex na mooy dugg aljana ba ca tegu mooy gis yàlla sëñ Tuubaa ñaan na loolu ci barke baasin miim waaw jasaakumullaa xoolal nag sëñ Mbàkke Madina comme ni nga ko waxee ni mu fonke maamam seyxul xadim te sëñ tubaa kenn du ko fonk te xam ko ba yëg ni yow li nga def doy na billaahi wallaahi taala asim am na xasiida gu may jàng muy busraana jam sa suna sëriñ bi nee na kataba allahu tabaraka wa taala anna haatayni alqasidatayni kutibata ala saaqayil arsi wal kursi yi walaa yaxtasu bi rahmati man yasaa wala sulfadi azim nee na sëñ Tuubaa nee na bi ma bindee xasida gi yàlla da ko bind boole ko ca décoré aras ak kursi yu mbokk yi loolu rëy na de loolu ku dul sëriñ Tuubaa ba adduna soso ba tey musoo ko wax bind ab poème yàlla bëgg ca ba bind ko ca aras ak kursi yu ba xasida gay daanoo waaye nag dafa dafa sëñ Tuubaa dafa baax bëggul kenn yàqu ci moom ku yàqu ko yàqul ci àll ba mais Seyxul Xadim bëggul kenn ku yàqu ci moom moo tax mu ni ah wallahu yaxtasu bi rahmati man yacha wala sut fadil azim yàlla moo ma jagleel yërmandeem moo tax maam loolu yàlla moo ma jagleel ngëneelam gis nga saalika fadloo yuuti man yasaaw fadlulaahi ci alquran doo gis mu nekk ci loxol kenn ku dul yàlla foo fekk wa anal fadla bi yadillah fadlulaa yuuti man yasaaw Sëñ Tuubaa nee nag bu bu loolu bu mu leen diis yàllaa ma moom moom leen moom aras moom kursiyu moom sama xalima bu ma ko bindee ba mu neex ko mu def ko ci aras kursiyu boobu leen ko weddi yàllaa ko def te lépp lu la nit ni yàllaa ko def rek yàlla wax na la ci alxuraan ni man naa ko ba ca tegu mu ni kataba allahu tabaraka wa taala anna haatayni alxasidatayni xafisatuma amalatul xars wa tasabiima al arsul azim maa jamiil malaayikati wala ala man xol wakiilun billaahi bu ne ku ma sopp yàlla dana ko dugal aljana bu ko weddi xoolal li mu jëf ci dundam billaahi boo xoolee li mu jëf nga xam ne sëñ Tuubaa lii jombu ko waaw bi xasiida gi xafisatuma amalatul ars ñi yenu ars mokkal nañu ko buñ ko dee jàng nag waxtasa biyemal arsul azim nii la ars di def di sabbal borom mbokk yi sëriñ tubaa nee bu ñuy jàng xasiida gi maa tas bi jëbil malaayikati mbooleem fu malaaka nekk ci moomeelu sunu borom danañ danañ sabal seen borom gis nga yool ba mu cay jëlee rammu këpp képp kuy doomu aadama maa tas bi jëmeel yàlla wax na ci alxuraan yi wa maa yaxlamu junnooda rabbika illaa huwa nee na kudul man man yàlla xamoo limu malaaka yi wax nañ borom xam-xam yi wax nañ ni bu yàlla ne woon malaaka yi na ma ku ne yut fepp suuf suuf dana jeex bañ ngarañ tabax yi ba lépp jeex kooku mooy sunu borom tabaaraka wa taala moo tax ku ko jaamuwul du ko naqari ndax am nañu ko jaamu ba mu doyal xam ngeen lu wax ca daaneel ba dani wahaballaahu tabaaraka wa taala li naasi mi asil abiyaati maa laa yaskuruhu li ahadin abadan bal yaskuru laa taala ali abadan ñiy dund xasiida ñépp tey dund sëñ Touba xam nañ ni sëriñ Touba dégg nañ ci moom jàng nañ ci moom lu lu leen jaaxal sëriñ Touba nag nee na sëñ li ko yàlla defal ci xasida gi mu bind ci arasa kursi yu nee na du ko wax kenn la ko ci yàlla defal nee na du ko wax kenn kenn kenn nee na da ciy sant yàlla ba faw kooku mooy sayxul xadim ah kon nag euh, xam naa sëñ Kamal ndigal lii mooy lii ma def xam nga Seex Bas moom mooy borom mbég mi te damay wax ni ree yi sëñ Muntaxa yii daa am lu ko waral daa am lu ko waral de ree yombul de sunu borom sax bañ na ko ba naan fal yalhaqu xalilan wal yabku kasiran di leen ree lu néew tey jooy lu bari ndax li ci sunu kanam allahu akbar li nekk sunu kanam te nekkul sunu gannaaw dafa raglu lool waaye ku bëggal sëñ Tuubaa am bëgg koo jur mu am bëgg ku la bëgg sax am bëgg looloo dal sañ sëñ Basiiru bi mu jóge Mbàkke yi jaar jeewal dem Ndar fa lañ ko ne soxna Fatima du Maamoon am na am na gan mu ni tudd leen ko Mouhamadul Basiir jullit ñëpp xam na ni mbég ki ko am dëgg-dëgg mooy Seydunaa Muhammad bu ñu neexee def nii nag màggal ko waaw billaahi wallaahi taala sim kooku la yàlla wax ni ko wala sawfa yuxtika rabbuka fatarda waxu ko keneen de moom la wax ni ko li yaxfira laka llaahu ma taqaddama min zanbika wa ma taaqara wuytu ma nimatu alayka wa hendika siraatal mustaqiman moo tax borom bi dëgg-dëgg mooy Seydina Muhammad moo tax Sëriñ Tuubaa ne ko mahat mahabbati al muxtaara Seydina xubbil maxaaniya wal ahlina wala wala bëgg gi ma la bëgg far na ci man bëgg alal wala ahli naa ki soxnaa ki mbokk ki taalibe moo tax Touba du tas ku fa ñëw yaa fa indi sa bopp boo dee dem garawul booy demee sa moroom ñëw rek. billahi wallahi taala azim sëñ Mbàkke Madina ku ko xam lépp luñ koy defal da nga ca feeñ ndax feeñ caa gën bañ caa feeñ ndax lan moo ko ko may ku werante ni sëñ Mbàkke Madina yàlla gërëmu ko xamoo xamoo ko sëñ Mbàkke nga xamut xamoo lam dundoon yàlla gërëm na ko. yonent bi gërëm na ko sëriñ tuubaa gërëm na ko sëñ Modou Moussa gërëm na ko sëñ Cheikh Mbacke Gaynde ma gërëm na ko képp kum jamono teel ci doomi sëñ Touba yeeg Cheikh si gërëm nga sëñ Mbacke Madina kon a ah, bis la bu tedd gis nga waxtu wi ñu nekk nit yàlla yëpp d'accord nañ ci waxtu ñaan la ajjuma buñ julee takkusaan ba ba ñuy julli timis loo fa ñaan ci yàlla boo ko tegee ci yoon sunu borom dana ko nangu. waaw kon nag Cheikh bas a ah, ci yow laay daaneel man sax li ma gënaloon mooy nga may ma ma jàng benn xasiida bu ma jàngee benn xasiida ñu jox seen kamaal mu wax li muy wax ñaanal ñun ñëpp ñu yeewee ko ndax fi mu tàng naa waaw tàng naa te yaakaar naa ni waaw parce que wuyul sëñ bi مسالا نرسل العرم بسرى لنا خاتتنا الجود والكرم لمسالت علينا الأسهر الأرم بسرى لنا خاتتنا الجود والكرم لمسالت علينا neena narjo minal waati xaari xali xana xana ni daa wa wa jabarun wa muntaximoo إخاذته ولا طول نصف دارين أن تقيم أسرى لنا خاذتنا الجد والكرم لمتى لك ليس فلبشت بامبكننا وهو الحكيم مساء كان وما لم يكن سعيه فدريا عديم

من له جل يسرمدا ولدا مسلسا فيه قد سلت له خدام مسرى لنا خالدا لجد ولا كرم لمتى لخلينا لزر العروم بعدوا له يا سوي تسلسي في حجل وتاريخه وقبل موت بغده ندم لنا خالدا نجد والكرم لما زال ما مصر يمبك مدينة لربكم سارب مسلمين مهل بخف من تسعد عن إسبيك سلم لنا خالدا نجد والكرم علينا نسور الحرام الله باق خليل لا يسبهما ليلا بالعلي يخطر والمفرد ألم بشرى لنا خانتا نجد والمرأة عبدنا ومن يصلي فريدا ملكا سمدا فجعل ويلاخي كله العلم بشرى لنا خانة جود ولا كرم لمدى عليك Mbakke nee na antum xuyaara dara lilla ini ma an sumun waxum yun kaza fil asri takamo lana xaalata jotu wa karamo la madha قد خلينا لزر الحرم فإني لأحمد ربا لا شريك له في البري والباري هو والوازن الأكرم لنا خالدا نجد ونكرم لما زال خلينا سنبجة بامبكنين أدوه وكريم يخيبني بسي منه تاتي قلبي الإكم لنا خالة نجد وكرم لما زال علينا لسر الحرم وهو الذي كونه اليوم فرحني والفؤاد يزال ساكو وخمم لنا يا ليت قومي فاليوم قد ألموا بكونك لي يا إساني محل ممو ألم علينا نفس الخرم وهو الكتاب الذي من كان خادمه ذكره والأمال والزيام سألنا قد دانا جد والكرم لمسعى علينا سر الحرم وإنني أحبد الموت لا خدمة لسفين جود خودي أمو أسرع لنا خدتنا الجود والكرم فتيه كوني هنا وغدا عند المخادم مثل ذاب من كروم بشرى لنا غدتنا الجود والكرم لما سهر علينا رسول شيخ الخديم نانا صلى عليه بتسليم من دمن مغوى وكان لي به يستفي الجود والكرم خذنا لنا غدتنا الجود والكرم لما سأل علينا غزر الغرم أحمد مرابي ودام المصطفى وسليم مرتبى نبي الكرم أحمد مرابي ودام المصطفى بالبزارة تاتي الأسر الحرم أحمد مرابي ودام المصطفى وسري وبالبزارة تاتي الأسر الحرم أحمد مرابي ودام المصطفى وسري وبالبزارة تاتي وهو بتيبة وإني له جار هناك يسر رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وذهبه في البارين دور أخاتبها بالمات وهو بتيبة وإني له جار هناك maa ngi leen di nuyu di leen ziare sama kàddu nag maa ngi ko yëkkati di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal sëñ Amdi Moodu Mbenda mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak gépp njabootu sëñ Tuubaa bépp gépp njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ak bépp taalibe maanaam nag boo gisee ma jël fi kàddu dafa am loo xam si dama ko bëgg a firndeel mbooloo mi ndax sëñ mu Mbenda Fall dafa am lu ma waxoon bi ma agsee ci kër gi ma gis ma gis ci wax ja ma waxoon ma gis ci lu lu te dañ ko taywaat fii déwén ma wax leen ko sëñ bi dafa woon ni ma sëñ Kamal ma ne Fall mu ni ma jege ju sori ak sori ju jege daal di ma koy tojal ni ma néew ju bari ak bari ju néew bari ju néew bari ju néew ak néew ju bari loolu nag ay wolof la maanaam jege ju sori mooy nekk ci yotu sëriñ bi te li muy doo ko def li muy doo ko bàyyi yow yaay ka sori hmm. boo nekkoon ba ginnaaw Fongolimbi mbaa ginnaaw Amérique te lépp lu nekk sëñ bi nga di ci nga di ko def lépp lu muy digal nga nekk sax ci lu muy tere nga bàyyi ko yaa ngi yaa ngi taxaw sëriñ bi néew ju bari ji may wax nag fii laa ko gisee te waxoon na ko ndax dañu ma néew ju bari kat mooy mbooloo mi day mel loo xam si bariwul te fekk ña ñay ñay mbooloo ma ñoo ëpp bu doon téeméer junni nit ndax lañ fa teewee ak nañ fa nekkee loolu nag moo ne moo feeñ fi ci mbooloo mi day mel ni day mel ni mbooloo mi bariwul waaye mbooloo mi fi nekk moo ëpp mbooloom Sénégal ndax ñi fi nekk li li nekk seen i xol ak li tax ñu ànd ak sëñ Mbàkke Madina ànd ak sëñ Tuubaa ak Cheikh loolu moo tax mu yëkkati mbooloo mi ba àgg na foo xam si bu doon Sénégal gépp duñ fa àgg loolu nag dafa maa fiir kon yàlla mi fi daje ren danañ si daal daal di yoon bu soobee bu soobee sëñ Tuubaa ak mi ngi mel ni dañ doon tabax te tax bi doon tabax nag fi ne mel na ni mi ngi yéeg di di di yéeg di gën a yéeg te day gën a yéeg rek dañu fekk lépp waaw kon nag ñu ngi sant baax di leen gërëm di tax ma jël fi kàddoo tam nag du dara lu may di doon taalibu xeebu ndax Cheikh Rafal moom fu mu nekk moo doon seeni i taalibe man tam seen i taalibe laa nekk ci yoonu Cheikh Rafal yu ñu tam fas yéene wéy digal bàyyi tere di soññee nag di soññ sama bopp di leen soññ ci taalibe di soññ sama bopp di leen ci ab yar ak i teggin di soñ sama bopp di leen soñ rek lu waay yéene sa bopp na ko yéene sa morom ndax sëñ Tuubaa loolu ñu digal Cheikh Rafal loolu ñu digal jëf nag du jaawaloo jëf du jaawaloo jëf du jaawaloo suñu mën a wax jëf du jaawaloo maa jëf ju ne ñeel na borom kon nañ góorgóorlu ci jëf lu baax ànd ak sëriñ bi tey ñaan sama borom ñi nga xam si ñoo taxawal bis bi ak niñ ko àndee bokk ko bokk ko di ay xarit di ay wëlëri di ay taalibe yàlla na sama borom yàggal taxawaay bi wéral cër yi guddal fon yi ba lépp lu ñu yéene liggéeyal sëriñ bi yàlla daf ñu fekk ko te am am xéew ko liggéeyee ak wér ak fund gën a wér asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ngir barke sëriñ Touba ak Cheikh Marou Bakay yàlla na sëriñ bi yàgg ñu suñu gana nañ ko ñaanal rek mu yàgg fi rek loolu moo dàq lépp jërëjëf salaamaaleykum mbokki taalibe yi mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu ci turu Serigne Cheikh Mbacke Madina di ñaan ci daraje Cheikhul Khadim Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacke suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko yàggal fi sëñ Ahmadou Mokhtar mi xalifa Cheikh Mouhamadou Moustapha yàggal fi suñu yaakaar tey ak ëllëg di Serigne Cheikh Mbacke Madina Baye Mor. sëriñ Mbàkke moom sëriñ Cheikh Mbàkke Madina ñu di ko wax sëriñ Mbàkke Bombali di taawub sëriñ Mbàkke sëriñ Cheikh Bombali moom laa waroon a àndal ñëw ci sa bis bii waaye yàlla jaam ak sababam yàlla ak dogalam mu génne otoom pour ñu ànd ñëw yàlla ci ci coobareem am oto ba ay ay jafe-jafe am ca mu ne ma Baye Mor ak taalibeem ak na ko sëñ Mbàkke Madina jàppe woon ak ni ko sëriñ Cheikh sama waajur jàppe ma jëlu jëloon pës sama sama jëmmi bopp bëgg a dem teewee ji bis ba yàlla ci jëmmi boppam dogal lii am ma bëgg yow mi nga xam ne sama taalibe nga di sama jëwriñ di sama xarit nga dem ca bis boobu teewoon ma fa kon maanaam la sëñ Abdul Ahad doon wax naan ab taalibe li li muy sàkku mooy saadeex ba man de toog naa sa Cheikh sa Cheikh na ma sa baay moor mii saadeex la ndax kilifa gu toll moom am na yeneen i yitte waaye dara ñuru ko lul sëriñ Mbàkke màddina ak kër sëriñ Mbàkke Madina kon li ñuy def mooy léegi di ñaan ci daraje Cheikhul Khadim suñ borom yàggal sab taxawaay lool guddal fan wi sàmm la sàmm njaboot gi ci daraje sëñ Mbàkke màddina di ñaan ci daraje sëñ Mbàkke Madina lépp lu fi waay ñaan ci daraje Cheikhul Khadim yàlla na ko ko yàlla yombalal ci barke sëñ Mbàkke Madina ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jottali nuyoo ak ziyaare sëriñ Cheikh Mbàkke màddina ak doomam sëriñ Mbàkke sëriñ Mbàkke Bombali ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum aleykum rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf ñi maam Dia Cissé. ndax maam Dia Cissé. ndax ndax ndax maam Dia rek sikkal na ko. maam Dia Cissé maam Dia Cissé sikkal na ko. nee na yàlla ko ko yàlla def député wala ministre. nee na sant na la gërëm na la mi ngi lay ñaanal yàlla. nee na kóllëre gi mu amoon baayam. nee maam Dias mi ngi koy dox ba dëgën. nee na yu bare bare la ko indi ci bis bi. nee na moom di borom këram ak i dëkkandoo. nee na xolam sedd na guy yu. nee na ni mu ko nee yàlla na la ko sëñ Mbàkke Madina si nee na mi ngi gërëm yépp di siyaar ñëpp nee na bi yëpp it mi leen di sant leen gërëm bu baax a baax dama bég trop ci question bi ma wax ndax man dama judd ci keppaaru murit ñu yóbbu ma ci la ma jàng fa alxuraan ma toog ci la ba nekk fas kañ juga si sëñ màggat kanji ñu nekkan sama mbokki daara daan ma sas nuy bay ca tool ya yàlla def ma nekk ñoom ba ñu jël ma fa yóbbu ma ma jali jàngi bi ma commencé njàngum école ba am juróom-ñaari at sëñ Modou Moustapha Mbacke ba mu njëkkee ñëw xombal ma ànd ak sama maam jóge njëfun candige bi ma ñëwee gis ko mu ni mu daan kaalawoo ma ñëw naan sama maam day seen sëriñ bi day niru jigéen yu mu sóoru ndekete kaala gi mu daan teg ci boppam bu mu daan kaala woo moo tax ndax booba gu ne laa xuma ci kaala dara ma nekk noonu nekk noonu di jàng di def mouridisme ba yàlla def ma jóg dugg ci sëñ Mbàkke Madina nekk sama sëriñ ma gis sëñ Mbàkke Madina waa kër sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha di ñëw foofu ci xombal ñu tabax kër ga sama bàjjan ma jaara fay di seeg Saliou Mbay Saliou Mbay bàyyam joxoon ko ndong ku ñuy wax alaaji ndong mbay te sel ko mu joxe woon ko fa comme addiya Saliou Mbay ci boppam sëñ Mbàkke Madina takkal ko ko comme soxna sama bàjjan ma fay ma fay dem gis sëñ Mbàkke Madina man leen kii doy na ma comme sëriñ te booba xale laa ma jóge ci la ñëw jébbalu ci sëñ Mbàkke Madina sëñ Mbàkke Madina téye ma ak ñaari loxo di ma dimbali di ma ñaanal may jàng di jàng di jàng ba yàlla def ci man li ma bëgg li ma bëgg mooy lan li doom ju baax jëpp bëgg topp say waajur déggal say waajur topp say say waajur ma di ko def di ko def doo ba sama baay wàcc liggéey may ànd ak sëñ Mbàkke Madina ba ñu ne soxna jot ñi man sax sama baay gaañoo na ba muy gaañu vingt ans juste laa am waaye mu bàyyi ay xale yu tuuti xale yu tuuti yoo xam ne yii ah mënuñoo mënaluñ seen bopp dara ka ca gën mag juróom-ñaari at la ñu wax Cheikh fay ma nga lee moo nekkoon adjoint directeur poor du laaj Alaaji Taala fay moom itam euh, commandant euh, gendarme la ak Lamine fay ak samay rakk yu tuutee tuutee tuuti ma ne du ma dem bàyyi sama doom yi bàyyi yii dootuma jàng ñu wax ma leen dootuma jàng dagg sama njàng lycée de la fosse boo ko daggee ñëw jëngu di liggéey ak ñoom di liggéey ak ñoom di leen dundal di leen dundal di leen dundal sëñ Mbàkke ma dina dama ñaanal ba ma am tee ma am ko ma di dem nag ba nga xam ne nekk naa 1961 ñu affecté ma ma nekk comme enseignant bi ma nekkee comme enseignant ma ñëw fii Thiès toog Cheikh bu sa ñoom ñu jógee lycée Malick Sy ak euh, Basir Basir ñoom ak gaam bi fi nekkoon yëpp Mamadou Cissé ñoom ñoom xale yëpp ma nekk ñoom daayira nekk ak ñoom daayira nekk ak ñoom daayira ba daayira jeune mouride bi sëñ ab laxaat doon wax ba tere woon kon ba di indi euh, euh, isbu tarxe yi bi mu indee ci isbu tarxe yi daayira murid yooyu woo ma ne ma danoo bëggan nga ñëw nekk sunu premier directeur adjoint ma leen bu ma ko man ndax bu ma ko defee bu ma jógee Thiès xale yi du daayira dafay daal di fay te ba may samp daayira fii biir Thiès kenn ñemewu ko ndax i tubaab rek fi dëkkoon bu ma daan yëkkati daayira tubaab yi dañu ñëw nii ngeen toogee lay tubaab yi yëkkati daayira ak man booba kër yi man doog diise man doog fi dëkkoon ak Muntaga Aw Maymuna Njaay ak ku ñu wax Ndonga Ñang ak Ousmane Ba ñun ñoo fi nekk ay nit yu ñuul ki nga xam ni mooy mooy euh, Cheikh Ablaye Dieye daan na jóge préfecture di ñëw fii ci daayira ci sama kër sëñ Bakka ma dina gën ma cee soññ ma gën koo jàpp gën a jàpp daayira ba gën a jàpp daayira ba ba alaaji Moussa Diop mi fi nekkoon ñëw ci man ne ma li ngay def ñëpp a ko bëgg biir Thiès murid yi bari nañu fi waaye murid yi ni ñu taxawee ni nga taxawee yaa leen ci mën a di nii alaaji Moussa ma nga xamoon may ànd ak alaaji Moussa Diop ba sëñ euh, sëñ Saliou Touré bis bi mu njëkkee ñëw moo ma ko fàtte de man fàtte woon naa ko ci dëju maam na koy sekk maam taataay kii jaxaaw mu ne sëñ Mor fay mu ne ma sëñ Mor Faye xanaa xamuloon sa kër laa njëkk a fanaan ci bi ma jógee bi ma jógee got ñëw fi bi ma jógee got ñëw fi ba sëñ Sall Touré moom ma ci wax ci gémmiñam xanaa xamuloo sa kër laa njëkk a jógee laa njëkk a fanaan ci Thiès ba set ñu soog maa yóbbu kër xaw ma nan fële ci weti jumaa ja waaw ma ne ko loolu rafet na waaye fàttewoon naa ko mu teg loxoom sa bopp sëñ Santouré ci biir jaxaaw kër kii sama soxna la mu ne ma sa bopp bii képp kuy bëgg Xaadimu sol di ko jox addiya bu ko joxee addiya sa addiya segg na ci sëñ sëñ Mbàkke segg na ci Xaadimu Rasuul ma def ko ab ab cër cër boobu li tax ma def ko naw naa ko gërëm naa leen sant naa leen gërëm naa leen sant naa leen gërëm naa sama njaboot ndax ci njaboot gi ngeen ndax bu ma nee njaboot gi sama ancien élèves yi nekkoon lycée Malick si nga xam ni ñoo ma daan jàppale di ma jàppale tey ñoo ma jàppale waat ba bis bi lu ci am tey ginnaaw yàlla sëñ Bassirou Cheikh Tourat Bousso ak ñii ñëwul ak ñi ñëwut ak euh, Souleymane si dañoo den dañu jënd nag nag wi jar un million et ma leen amaguma ndigal ndax murit ndigal te sëñ Cheikh Bombali mooy sama sëriñ joxaguma ndigal ma rey nag waaye bu rey nag waxoon waroon sama doom ji ñu wax Doudou Ndiaye fay am na ko te mën na ko te yéene na ma ko ndax bi teraanga yu ñëwee kenn jëkku ko kenn jëkku ma cee def teraanga ci moom waaw ñëw na léegi xëy na da gisee giseegul waaye di nga ko gis bala ngay dem kon xam nga ni kooku am na nag waaye nag seen yéene mooy ñu reyal ma nag man leen bu déwénee bu ma yóbboo addiya ji ndax man damay def bu ñu jàngee ba suba ke ginnaaw suba sa ma dem ci sëñ bi lu ma fi am mu néew mu bari man ne sëñ bi lii de ma la ñu ma fi jox addiya bu ma saraxee taalibe li ba li ci des ma dem ci sëñ ma ne ko si lii mu sama addiya seen Mbàkke Madina nag mënu ma cee wax lu may dama ko bëgg dama ko bëgg dama ko bëgg jërë ngeen jëf sant naa leen gërëm naa leen Serigne Ahmed kii bii nag lu ñu ko waxee Ahmed Ndiaye déko gërëm naa ko sant naa lépp fi lu fi baas lépp loo xam ne chaise la fi moo ko def samay doom gërëm naa ñëpp ñu nekk bitim réew ak ñi nga xam ni ñu ngi ci dëkk kër dëkk bi gërëm naa ñëpp ku ñëw ak ku ñëw ñëpp laa gërëm ndax lu ñu far a def rek ñoo ko def gërëm naa maa ñaan ci yàlla nag boo fi yàlla bàyyi ba déwén nu teel ko waxtaanee noo ko coiffé it ja d'accord na ci yow kii sama soxna la boo ko joxee mu waxtaanee yow. di sant suñu ñaari waajur yi di sant nag sama borom kër bii di sant sëñ Mbacke ma ndax man dafa maa sëñ Mbacke Madina maa ngi ñaan nag ci kàttanu yàlla ak yonent bis bi ñu def nii yàlla nañ ko yàgg a suñu mbokk yëpp wuy si nañu ñëpp a ñëw waa Jaxaaw suñu waa kër kenn desul ñëpp a ñëw ma bëgg nag lool dix heures bi ñëpp a génn waa xombal ñëpp a ñëw kon nag ñoo ngi ñaan ci baaxu yàlla ak màggaay yonent bi njabootam gi lu ñu mën ren yàlla nañu mën déwén lu ko ëpp ndax nag lépp ñoom la ñoo jàppale seen papa ñoo dimbali seen papa ñu nekk bitim réew dañoo dimbali seen papa ñu fi tamit dimbali seen papa waaw naa la fayee njëkk a yónnee def ci papaam lu baree bari dun yaay fay démb leen ni papaam lépp loo bëgg wax ma ko ma def ko papaam def papaam wax ko ko mu def lépp kon nag ñoo ngi ñaan ci kàttanu yàlla ak yonent bi yal neen yàlla yokk ñii ma bokkal bàyyi moo tamit yàlla yokku leen yokk seen njaboot sëñ Fallou ma ci maa ngi ñaan ci baaxu yàlla ak màggaay yonent bi yàlla na ko barke bis bi yàlla na ko barke bis bi dal yàlla na ko barke bis